mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalalaa ci bi lima metti point comme di leen remercier comme à chaque fois ci topp bi ngeen ñuy topp ñu ñëwaat ak yéen ci actualité information bi nag di concerné ki nga xam ne moom mooy Serigne Ahma Mbacké bu Serigne Mourtala bu Serigne Touba ki nga xam ne nag moom mooy Serigne Ahma Mbacké ñu bëri xàmmee nañ ko fi nga moom mooy Sénégal à travers sujet bëri yoo xam ne dina ci prononcé wu bu fi nga xam ne moom mooy Sénégal ba tax ñu bëri daal di koy ràññee moom nag information bu neex lañ la ci moom parce que dañuy xamal ne dafa daal di takk soxna moom nag mi ngi takk benn xale bu jigéen benn jeune femme bu dëkk fële nga ne moom mooy Almadi nekk benn femme d'affaires ci information yi tamit ñu ngi ñuy xamal ne Serigne Ahma Mbacké daal dina koy jox li nga xam ne moom mooy 5 millions de francs CFA comme premier cadeau lii nag di information boo xam ne mi ngi concerné ki nga xam ne moom mooy Serigne Ahmad Mbacké moom ak ki nga xam ne moom mooy soxnaam ñu leen di ñaanal heureux ménage yàlla may leen njaboot bu barkeel comme toujours continuer leen di topp limametti.com ngir am information yi cloche de notification bu leen ko fàttee moo leen di mën a permettre ngeen mën a am xibaar yi foo leen mënti toll ñu leen di jox rendez-vous nag beneen yoon ci bi limametti.com ak yeneen